ñaan bi ma lay bëgg jox ni insha allah soko waxe bor bo mënti am nu mu mënti tol yalla dina la ko fayal alaykum Abdul Wahab alaykum warahmatullahi wa Ya wa barakatuh yow moom tey sa kanam gi triste na de ba jamm la lu xew du jamm de man de mom fani ci ay problème yu bëri la nek ah wa ka tok ni nga expliquer ma xoolal àbb suñu kër gi ñu nekkoon daan fa suturlewoo dañu faa génne ndax fay ñu location loolu moom doon na waar di yemul foofu man mii rek am na ñu bëri ñoo xamante ne dama leen a ameel bor ba nee nañ dañ ma yóbbu police vraiment métti na trop mais nag muñal li ngay dund nii xamal ne am na ñuy dund lu gën a piir lii lu gën a métti lii fuuf te ñu ngi koy muñ loolu moom dëgg la mais man dama bëggoon nga wax ma yonent bi sallallahu su nit ñëwaan am ay bor lan la ko daan digal ñaan bi ma lay bëgg a jox nii incha allah soo ko waxee bor boo mënti am nu mu mënti tool yàlla dina ko fayal lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ko wax wala sa xalaat la yonent bi sallallahu alayhi dafa mës a toog ak benn saxaaba bu ñuy wax Muaz radiyallahu anhu mu ko yow Muaz xanaa du ma la jàngal benn ñaan boo xamante ne boo ko ñaanee say bor bu tolloon ni montagne Uhud yàlla dina la ko fayal daal ne ko da ngay wax allahumma ya malikal mulki tu'til mulka man tashaa'u وتنزع الملك ممن تشاء وتعذ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك loolu mooy ñaan jërëjëf waay lii de su ma demee naa ko bind ba pare mokkal ko ba pare tasaare ko ba ñëpp mën see jëriñu macha allah loolu mooy yoon nit soo gisee lu baax dangay fexe say moroom gis ko maanaam da leen koy jéem a am yàlla baax na jëlal dix mille nga faj sa yenn soxla yi allah yal yàlla gën a yombal lépp yàlla na la yàlla defal lu kawe sa njort amin